xam nga dama leen di wax souvent am na liy xew fii nii du yoon parce que journaliste mënuñu ñëw fii nii box boo xam ne moom la ñu leen di attribué di ko jox ay militants yoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee depuis 2017 ba léegi non mais ani ani autorité religieuse ak coutumière déjà ba ci box des journalistes déjà alors que y a déjà une commune déjà militants yoo xam ne ni déjà ba ñu ngi wax dañoo war a dem ci kaw ama loolu moo war a nekk loo xam ne ni dañ ko war a bañ te journalistes yi war ko mën a nangu looloo dégg et c'est ça la vérité malheureusement ce qui se passe à l'Assemblée nationale est inacceptable voilà mu nekk euh, Gaston Massali nekk journaliste ci Libération li nga xam ne nag ñu ngi koy ñax moom mooy euh, place yi nga xam ne journaliste yi ñoom ñoo ko war a toog Euh, waa APR yi wala waa benn bokk yaakaar dañu andi seen ay militant rek leen foofu ñu am problème place ñu gis ne nag euh, ñu si bari sax ñu ngi naan nañ jëlaat signal RTS mais loolu ñoom ko parce ne euh, télé bu nekk yow yaay directal sa bopp. autorité religieuse et coutumière y a que des militants ici il faut le dire. militants yi nag ñoo ñëw ñoo ñëw euh, toog à la place des journalistes journalistes yi nga xam ne ñëw nañu def la couverture médiatique ci installation euh, euh, député yi voilà ñu jël keneen beneen journaliste. tey jii ñu ne la installation la ñu bëgg ñoo jël dem ñu comme des malpropres une petite star comme ça ngeen dëggal ko mel ni ay star au nom de quoi. léegi dañuy génn au moins ñun suñu bopp ñun presse bi ñu jël suñuy responsable parce que tey jii ñun ñii rek toog di parce que ce qui se passe ici à l'Assemblée nationale c'est inacceptable cette salle là ñëpp gis nañ ñu mel ab pukus la mënuñu fa jël presse toute la presse sénégalaise bëgg leen fa tënk ñu ñëw fii lañ daan occupé tey ñu ne ñu nag autorité religieuse la place ñu fekk fa ay militants maintenant ñu nit ñi nañ génn de l'autre côté c'est la RTS uniquement amul beneen caméraman boo xam ni am nga possibilité teg sa caméra. comment on peut travailler dans ces conditions là. maintenant soit dañuy may ñu dugg ñu def notre travail convenablement. soit également ñun ñu ñibbi convenablement dem toog suñu kër yi. parce que après la Ndiaye bu formation des jeunes reporters euh, ginnaaw bi nga xamee ne euh, wax nañu ne. Euh, militants yi ñoom ñoo jël place journaliste yi takk der yi nag nee na autorité religieuse ak coutumière yi ñoom ñoo fa nekk ñoom nag nee nañu nañ leen jox place bi yàlloo yelloo sinon rek ñu daal euh, li nga xam ne moom mooy investiture yi nga xam ne moom moo jëm tey jii ci euh, député yi.

Lui, a n'était pas les coups. Mais voilà, tu vas faire la place.